tàllal yow ñi seetaan kàddu xale yi la yow ñi seetaan kàddu waaye yow nijaay yow ku la bàyyi nga nekk si mbedd bi di dàqante nii rek waaye yow nijaay xanaa yow déggoo recevez-vous nga toog sa kër nga nekk si mbedd bi di dàqante nii mel na xale day aram dugal si biir kër gi nga bàyyi ma man isaani maam envie dàqante na bu taan sàmboori mari góor maam envie dàqante eh kaay kaay kaay kaay dàqante zup zup ñëw mba lee duguma booy dem may day aram duggal duggal su ma dàqee ne muy duggee si bunt kër gi day am doole de bul rombe fa mu lay fel ba nga dugg kaay kaay eh kaay kaay kaay dàqante kaay wup wup sambori marigo kaay ñëw na butaan eh dóor dàqee waaye yéen xool leen keeg équipement bu ñaaw bi ak baawam bi ak caayam bi mu boole nii yow nekkal si mbedd moom di def def la ba nu dóor la ba ngay bëgg a dee ba xam boo fi ñëwee si kër gi kan moo lay forote ni laa bëgg xam. gis nga peer man xoola ay dóor dàqe taxumaa jóg man damay liggéey sama liggéey laay def gis nga soxna si li mu lay wax duggal si biir kër gi bu yow nga def ko nga dem nga dugg si biir kër gi nga toog jàpp sa njaamu na instant yi couvre feu la nga bu baax la ma lay tegal man li nga am moo maa ngi sama suuf mbàjj tëdd du ma génne nag si sedd bi pour ma aar si jàngoro ji di dox si mbedd mi di surveiller ngay ñëw di dóor dàqeek man di defi kenn xamul man damay liggéey caaxaan taxu maa jóg dégg nga bu baax la ma lay wax gis nga ma lay jàppee naa la dóor dóor yoo xam ne yow da nga yaakaar ne sax ma damaa dof lu leer laa lay tegal man dóor dàqeewu ma de kafu ma reew ma waaw du ma génn si seddaay bi di financé mbedd mi nga nekk fii ci caaxaan man caaxaanum damay liggéey dégg nga bu baax la ma lay wax tiktok kaddu xale la youtube kaddu xale yi la instagram kaddu kaddu xale yi la YouTube kaddu xale yi la Instagram kaddu Facebook kaddu xale